bonjour à tous euh, daal nous ci ci euh, VIP People ñu sommes ak ci du jour bu tay bi ñu doore xibaari wax ci politique euh, ak Aliou Sarr mi wax ci président Macky Sall diko xamal né bu mu déglu nit yi koy duggal ci troisième mandat ñu wax ci wa PASTEF mi a rumeur yi de fuite yi ci kaw Ousmane Sonko di sommes né amul exfiltration motorisée batay ci xibaar charge Benno Bokk yakar di élection présidentielle inclusives libre inclusif et transparent ñu wax une manifestation yu juin Vient la manifestation 1er 2 et 3 juin à 15 ans de morts et blessés et lu ci important dégâts matériels magasin Auchan champ tamit à chaque fois cible manifestant depuis mars 2021 perte matérielle yi tamit estimé nañ ko lu 15 milliards de francs CFA bu ñu ci syndicat national travailleurs yu commerce Sinatracom journal bi dis daal di si ñëwaat bu ci dégâts matériels yi tamit lu tollu ci 2300 agents yu Auchan dem nañu chômage technique ak euh, lu ci 2300 emplois indirects yu perte ak li di 500 emplois yu unité de production ak unité industrielle yu nekk ay fournisseur champ loolee nak euh, Doudou Kayta moko xamlé di secrétaire général bu Sinatracom bonne nouvelle ci député Benno Bokk yakar bi di Amy Ndiaye Gniby à na accouché na ci hôpital principal week-end bi journal bi daal di si xëy ñëwaat di xam ne ni am na doom bu góor ci fàttali nag moom amin Ndiaye ñibbi moom la ñu agressé woon en pleine séance plénière ci assemblée nationale daal di koy dóor daal di koy mbécc ñi ko ko teg nag di euh, député pur yi Massata Samb ak Mamadou Niang jamono yooyu nag moom député benn Bokk Yaakaar bi porté woon plainte contre agresseur mi ak lii di certificat médical buy attesté ak grossesse de onze semaines ñu bëri nag doon xalaat ne da leen bëggoon enfoncé moo tax euh, waaye nag suite histoire bi jox na ko dëgg Massata Samb ak euh, Mamadou Niang dañu ko dooroon daal di koy mbéj ginnaaw bi mu yëkkatee ay kàddu ci kaw seen guide religieux bi di Serigne Moustapha si ñu condamné woon leen six mois de prison ferme mbokk dañ koy jéxalé daal di dem Touba wax ci Serigne interdire activité politique fofu ca Touba bureau de vote fofu Touba la du jour la chaîne leader VIP People bayilé programme VIP People TV et bonne lecture.